yeba from mu ne nga bo nga jóge from nowhere nga dem ci audio ibe Ousainou Darboe banden mu ne nga sàkkande Ousainou Darboe ah, nga sàkk baayam mu ne danga sàkkande Adama Barrow ah, di sàkk baayam mu ne doomi réew yu baax yëpp nga leen sàkkande nga leen sàkkande mu ne nga sàkk kilifa yi mu ne amul benn risine mu ne loolu suñu ko bàyyi suñu ko bàyyi mu ne yéen njiit yi mu bàyyi leen ko mu ne danañ ko génne génne boo xamante ne mu ne loo xamante du neex dëgg la eh. nee na am na yu néew yi fa nekk am mu ne mi nga xamante ne weeru yu néew yi am na yu xeew mu ne moom xalaatam bu doy bi mu ne xalaatam bu tuuti bi loolu la bëggoon a wone ci nit o di ko wone ne mu ne lool waruñu warta am soo nekk APRC ñu ñun ñu ngi UDP yaa ngi APRC mu ne naxar bi nga am mu ne naxar bi nga am yow mu ne kenn tekkul la mu ne ceen teg ko la yow yaa teg loolu sa bopp ak doxal yàlla ak seen jëf ji ak seen jikko mu ne naxari boobu su nekk si sa xalaat wala sa xol yow xamuloo noo ko mën a génne xamuloo noo ko mën a génne mu ne nga jóg benn gul nga jóg nga dem ci audio nga saaga soowe say di saaga seen ndey ak seen baay amul benn régime amul foofu defuñu la dara waxuñu la dara mu ne ndax ñu nekk UDP rek <laughs> mu ne lii ah li doy na waaru de amuñoo colère mu ne naxar na muñ lool amuñoo colère mu ne neexuta muñ sax day mi nga xamante ne mooy laaj seen mu ne saaga bi moo saaga si soose yi mu ne waxul UDP su ne UDP mu ne xeet yëpp a ci nekk waaye dafa taana xeet yi di ko soose yi <clears throat> mu ne mu ne xanaa waxtu bi mu wax ci wabi moo mu ne dafa mandi wala ndax soose ak soose mu ne ndax soose ak mandinko ndax duñ benn xanaa time boobu dafa mandi eh di dugg ci nit ñi di saaga nit ñi di saaga nit ñi nit ñi mu mbir mu ne loolu mu ne mu ngi ci koot man xaw ma lu mu waaye dina oo inspecteur général of police di woo justice ministers mu ne lii court la boo xamante ne mu ne amul benn amul benn mbir sende mu ne am nañu rejet mu ne ñu ubbi ñu déglu ko jooje bu kii bu nekk koon am na tamit mu ubbi mu déglu ko mu laaj seen mu wax mu ne loolu kay amul jaru oo sedda